lépp yow la. déedéet sëriñ Mbacke Diop PDG. ah Ahmed Lo la jërëjëf ñaari sala xarit nga ne maam Gallou Gouda Diop ay maamam. Ah, dugg dugg xel la. Ah, yow yow ko xel la waaye mel koy waajal. xam eh, naa la. jërëjëf sama doom sama xel. bongo yi maas lekk ngeen lekk yëpp. lekk waaw waaw nga lekk naa ba suuf bi instant. am na waay. وخير mais borom xew bi jëloon nañ kii mooy sëñ Mbacke Diop borom xew bi mais borom xew bi لجنة النيل نادي بنا nga xam ne lu baax PDC Balla Gaye 2 l'empereur ñëw na ci nga xam ne tey sëñ Mbacke xanaa lay waxatoo dara sëñ Fallou ko xati sa ci gas yaakaar bàyyi Serigne Abo na alaaji fallu bàyyi sëriñ fallu sëriñ fallu bàyyi sëriñ ago alaaji fallu yow seexuna fallu yaa moom la fi may ma jëla law laa ko seex fallu law laa ne ko alaaji Fallu law laa ko Seex Fallu bu xeewal walwalee te na ngeen way Seexu Ndar Fuuta la alaaji Fallu loo mooy fadlul mooy aasif munul mooy faarisun fadlul mbàkke mu sooda ki ma ñu te mooy wasila bi fam lu xotti saadir bu tas yaakaar du gaaw ñu koy laaj ku laaj ma may la nga géej jël alaaji Fallu looy xaliw la subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun وسلام على المرسلين والحمد لله jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf Ndiaye jërëjëf sëñ kontaan naa jërëjëf sëñ Xaadim sama xol sedd na lool waaye Balla Gaye champion bu mag bi yegg si na léegi di génn sëriñ Mbacke Diop Balla Gaye 2 wala boog Omar Sakho loolu koo xam ci Balla Gaye de yegg si na léegi moo ngi dend xam mooy Alaaji Malick bu baax mii di gone di nag Balla kii nga dend Alaaji Malick mi nit ku baax nit ku la bëgg te sopp la mi ñoo ngi tuub bu baax nag di jégalu dañuy daal la ko tudd bi wax mais nañu tudd bu ñu paree continuer programme bi. sëriñ Xaadim Lo Gaydel si la ko jóg bu mbaa Gaydel ak aale daf si bi ci génee foo dem rek tubaarkàlla taalal jotaay sa yar sa jikko tubaarkàlla ak ni nga fokki tari bi yooyu bu baax nag dañ koy may loxo mu jóg jërëjëf si la ko jóg bu mbaa Gaydel aale bi miin nañu coow lii li ma eh, xam naa bala ñoo tudd Alaaji Jóob bi sa wujur mu ibbi yi ñaanal mbooloo ñu uufal ki nga mooy imaam xale bi liir bi ñu doom bi papa bismillah jërëjëf sëñ Fallou Fallou Fallou Xaadim sëñ Fallou moo doon may sëñ Bamba moo fi nag moo fi jógee kii bu ñu gisee doomi sëñ Bamba sëñ Fallou loo ndeysaan déglu jur yi léegi sëñ Fallou sëñ Fallou sëñ Touba sëñ Touba waaw ñu déglu ko. jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa barakaatu. ñu am mbégte lu rëy. ci jataay bii. mbégte loo xam ne mën nu koo génn ci sunu làmmiñ lu dul ku la xool rek xam ni dégg nañu ñi fi ñëw ñëpp sëriñ Mbàkke yàlla leen fi indi soo jarbaat nu bokk ak sa yaay nay ak baay bu la doon tooñ fu mu séen di la tooñ bu nu séenee dañuy daw man nañuy tooñ sa baay bii te kenn du la tooñ nit ñi ñu riis ci jataay bii faaw ñu tiitaroo ko man dara feetul maa bët ndax Touba laa jógee kii toog Balla Gaye nii fekk naa ko kër sëñ Bas mu sëñ Baara mu taxaw ci balcon bi ñu am naa problème ma ne ko ban problème mu ni ma dama bëgg a siyaare ji wax lii kër sëñ Bas ñeent ñi di fi koo xam ne nag kenn la muy Xaadim Loo Gaynde lu ma amul lu mu amul yàlla da koo yorul sëñ Moustapha Lo mooy bàyyam dëkk Gere déet Dakar moo ma ne maa la bëggal sama bàyyi Moustapha Lo sëñ Xaadim koy dee moom moo woo ba ma ñëw mu jox ma fukki junni ni ma damaa bëgg nga liggéeyal ma kursu junni may nañ ko kurus gi mu yëkkatiwaat fukki junni teg te ne ma dama lew ne la bëgg ci kurus gi ñu ma bu kurus gi demul alxuraan fan lu ma bëgg dinaa ko dem Bagdad xam li may wax man du ma gis lu nu loo rek ma ñu bis la lank naa loolu mun toog na ngi lay ñaanal nga yàgg lii lépp yow yaa ko duppee Serigne Mbacke Madina doom ma fekk ngeen la nga yabal ma fa ne ma dama loxal ma ko sëñ Cheikh keroog ma fa duggee daal ni ko yori caaxaan doo jaxasoo moom yàlla na nga fekkee lépp xale yàlla bu la ci nettali dara. suñu xol sedd na buy suñu yaakaar dolliku na da ngaa wax noonu tudd ba noppi su ko jël kàddu a nii toog war a tudd am mbégte ci i bii ndax man bari ci démb xëy na damaa wax lu ma neex barke sëñ Tuubaa diwum diw mii lam diwa lu koy diw kon imaam daaw ni nan musul seytaane jàng faatiyam ayatul kursi àndax ak naas ñaanal saa borom musal ko ci ña mu war a daje Omar Sow anam ana ki doon joxe xaalis Omar Sow da maa joxul xaalis moo tax Omar Sow ana Omar ñëwal dama ni mi ngay jógee dafa jage bu la jógee doo fa jógee sëñ Tuba ni bilaa su man baari sa nii bilaa su man yu baari su mun takk man baari sa man waaw kay waaw kay defal naag rek defal naag ah béttu moon waaw kay léegi nag nan def li ñaan def ñaan dinañ def ñaan def na nag maa la ko wax may maam loolu lu duuma ko waaye suñ Mbàkke la nga jàppoon ba am lii bu ko bàyyee ci jig na la te bàyyi la biiram mu ngi nii toog bu la gërëmoo loon day yable li tax mu yónnee ndaw doyu ko mu ñëw ci biir détail bi xam na ne mat ko ku nangu sa bàyyi tungóom la nag sa bopp féete kaw te dangaa nangu nu tungóom la